Euh, ci xibaar yi ñu daal di koy door ak lépp loo xam ne rek jëm na ci mbirum Guy Marius Sagna jamono ji nag ma nga ca loxo yoon la ko sabab nag moo di moom gi Marius Sagna benn lettre d'information boo xam ne rek ma ngi ko doon jébbale foofe waaye nag gannaaw ak gàllankoor goo xam ne jot na ko amal ci wàllu ko dem beek dikk bi jamono ji ñu daal di koy teg loxo euh, moom gi mari Sagna mu nekk nag xibaar goo xam ne rek dinañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatu ci yeneen jotaayu xibaar